ndax il y a un cas Ahmed Khalifa Niass dans la religion musulmane au Sénégal. un cas Ahmed Khalifa Niass. non c' bi nga xam ne que que kenn kenn werante ko c' est que euh, xam-xam dafa am ay jiixit yu muy def Ahmed Khalifa Niass si boobu euh, baayam ñuy wax Cheikh Ibrahim Niass nafaana allahu bihi amin premier téere bi mu taalif boobu wooteegul sax faydu tijaan bi nga xam moom lañ ko moom lañ ko moom ko askane moom la woote mu ngi tudd rooxul adab mu ngi jàngale lan mooy teggin lan mooy teggin ci wàllu xam-xam. Euh, taalibe naka la war a mel as soxbatu maanaam àndandoo diggante taalibe ak sëriñ naka la war a demee euh, maanaam su aadaab yi la jàngale adab yooyu nag mooy may nit mu xam naka la war a waxee kan la war a waxal fan la war a waxee euh, kañ la ko war a wax yii yëpp Ahmed Khalifa daf ko daf ko xamul Ahmed Khalifa il est spécialisé dans la polémique il est spécialisé dans des sujets à intrigue ay sujets yi xam ne Euh, masalan sujet yi nga xam ne jarul sax wax ci mbooloo sujet yi nga xam ne ça touche le sexe soit c'est des si ay masala xilaafiyal yi nga xam ne yu danse yi nga xam ne dafa am sax lu muy yëngal dans la dans la plaie des musulmans yii la bëgg di waxtaanee te man nee naa yii nag c'est pas c'est pas un hasard mais xam-xam la c'est pas un hasard non c'est pas un euh, il faut jullit ni surtout waa Sénégal il faut ñu dem léem a gëstu euh, ñan ñoo nekk si ginnaawam ci fan la bokk ndax nit suy wax rek dafa am ay intérêt Léona Niassène la bokk dafa am ay intérêt en am ñi mu bëgg a waxal dafa am lu tax muy wax donc Ahmed xalifa à à première vue ñëpp umpale wu ne waxul pour boole juddu Sénégal yi waxul pour loolu ndax kuy attaqué ay kër attaqué ay kër baayam attaqué ay alaaji Maodo attaqué ku ne kii waxul kon pour boole juddu ñi moom c'est quelque chose de clair ginnaaw boole juddu waxul pour xamle ndax Ahmed Khalifa dans sa dimension moom c'est le seul connaissant du Sénégal Sénégal yëpp ay noir lañu moom kese fi am xam-xam amu fi nawle moo dafa am benn arrogance bu extraordinaire te xam-xam moo nangul arrogance réy-réylu bu ñu fàtte ñoom Nimrod dama koy fàtte chaque fois ne ko na xool ci Nimrod na xool ci Firawna na xool ci ñu bëri ñi xam ne réy-réylu ak balbalu leen yàlla aviliré Dieu les a avilis n'est-ce pas waaye au sax. na moom li muy mooy ñu ku nekk xam niveau bi mu toll. loolu donc lay prôné mais amul niveau moom il est quoi. il n'est pas mufti il n'est pas mufti warul def fatwa mu il est kii Ahmed Khalifa def fi jàng matière islamique def fi jàng bu extraordinaire plus sachant que lui et plus connaissant que lui sont dans ce pays ñu ngi ne tekk et ñu ngi ànd ak yar ñu ngi ànd ak effacement Ahmed xalifa amul li muy prôné sax peut-être ça se voit que dafa am ustaas yoo xam ne dafa leen yëpp et loolu ça dafa leer ci biir koor gi moom mooy kii jàppale ustaas yooyu nag dafay may xaalis ustaas yooyu moo tax moo tax ustaas yooyu ñu ko corriger te ñemewuñu suñu waxee ni yéen bopp retaan est du problème xam-xam donc ustaas yu bëri amuñu xam-xam fi Sénégal ustaas yu bëri euh, si la der lañ waaye Ahmed Khalifa euh, wax dëgg yàlla c'est un cas spécial si biir euh, ko bàyyi xel est-ce que nekkul problème bu personnel ngeen am yéen ñaar bon man j'ai mun naa ne sama sëriñ la mun naa ne léeg-léeg dama koy bégge nag ndax il pose des des des des des des débats yi nga xam ne sincèrement des fois Euh, dama koy déglu ne macha allah il a raison parce que man nekkuma ci parparloo mais réew ma ko ànduma ak moom des fois day lu muy wax c'est vrai mais nag sincèrement. par exemple si si yan problème si yan question ngay d'accord ak moom parce que c'est important aussi que ñu xam. waaw euh, même su ma d'accord ak moom dans la démarche mais damay d'accord ak moom sur des faits yi nga xam ne des raison damay jox exemple bu ndaw exemple weeru koor julli ak ñàkk julli am na fi at bi nga xam ne mu ngi am euh, clash bu métti. mu am position bi xam position bi mooy islam li mu waxoon mooy dëgg jullit ma la war def si wàllu tabaski la woon euh, at boobu euh, moo commission bi Iyane Thiam dañoo amoon sax problème. Mm-hmm. fàttaliku naa sax ne am na émission sax bi nga xam ne euh, Cheikh Tidiane Bitèye. GTV organisé woon na ko ak Mourchid Iyane Thiam. Mm-hmm. il était intervenu en ligne. Ah, n'est-ce pas GTV après d'accord avec la démarche ni mu waxee ak kilifa parce que Iyane Thiam kilifa la qu'on le veuille ou kilifa la qu'il n'est-ce pas euh, je suis pas d'accord avec lui sur la démarche bi mu waxee ak moom mais dans le fond sur la question Ahmed Khalifa avait raison mm-hmm. Ahmed Khalifa ay douze questions bi que sur beaucoup d'autres questions il a raison mais c'est que kon nangul nga ko xam-xamam euh, du mu ne du mu ne jàngul am na xam-xam mais xam-xam dafa am lu ñu koy doyee Seydi Hadji Malick moo doon wax naan su démb doon tey du mu uti xam-xam damay uti teggin xam-xam am na ni nga koy délivrer du nekk te xam-xam mm-hmm. am na ni ngay piétiner nit ki ni nga koy ni nga koy réduire à néant kooku du jëriñoo sa xam-xam am na sujet yi nga ne boo ko jëlee di ko di ko tàmm dañuy yàpp sa xam-xam te loolu dafa fay si Ahmed Khalifa parce que dafay dem ba ay tele dañ ko jàppee benn showman jàppee ko benn mag bi nga xam ne waa su kii mooy suñu paa kii de mooy suñu ay ay animateurs yu ñàkk fayda mës ko jàpp ko yàpp ko di wax ni kii mooy suñu paa yaay suñu vrai oustaz ak di ko fontoo ci plateau lii moom moo ko mayoo kom ndax am na ni muy waxee ak yi muy wax moo tax ngeen ñeme ko mës ngeen jokkoo téléphone yéen ñaar wala lu ni mel Ahmed Khalifa ah non loolu ah <laughs> loolu moom loolu moom c'est vraiment privé. Mhm. <laughs> parce que parce que am na ñu muy woo aussi. waaw am na ñu muy moom mais man mais man alhamdulilah man moom euh, bokk ma si ñu muy jàppale man mosuma jàppale. te man kenn jàppale mais ba léegi yaa ngi maintenir ne am na ay loge maçonnique yu nekk si ah dama ne daal euh, lors de son euh, de sa cérémonie bi ñu ko doon bi ko doon récompensé def ko docteur honoris causa joxaale ko les clés de la ville de Lyon di ko màggal. dama ne assemblée boobu ñi fa toogoon ñëpp ñoom Jules Frey ak ñi fa nekkoon ñëpp laa ñoom de la Charette ñoom ñëpp je les connais ay franc-maçon lañ la wax mu ne ko nag yow léegi leeral sa position ndax oui ou non da nga ci loge bi man li ma wax ba tey maa ngi ci de léegi nag moom bu répondre ci question parce que ba léegi répondre ci question boobu bu répondre ci question man naa ci waxaat incha allah